Alaaji Papa Dieng maa ngi lay nii maa ngi lay fay bu baax. tey nga ñëw ànd ak parrain bi xam ne dañ naan ne Alaaji Papa Dieng du kenn ci làmb. dëgg la li ma fën di tey mooy sama doom la ñu tuddee làmb ji te làmb ji Kolo sama doom la Malabe Mbaye ko jur Malabe Balla ko jur Balla Dogo ko jur muy kër Balla Dogo moo jëkk taxawal. boucherie fii si Sénégal boobu tubaab yee fi ne moom moo leen daan fournir yàpp mboolem ku ci liggéey après rek ay ñoom Mamadou Isaac ñëpp ci loxoom la ñu jaar ndax bi mu ñëwee Ndakaaru kuy mbokkam jóge ci àll bi boo ñëwee moo lay fat kuy ndaanaan rek Sénégal fa nga jaar ndax bu yàgg ba mag ñi loolu lañ daan def ñu tudde nag làmb ci ki nga xam ni mooy Kolo Mbaye ñu tudd ko Colorado bi nga xam ni moo doon denc bàjjanam màgget fukk bokk ak Malobe ndey ak baay moom turandoom xaritu papaam la mu may ko jigéenam muy màgget Colorado boobu lañ ko tudde te Colorado moo doon ànd ak booy bambara bi ba bambara yoree drapeau yi di bëri ak ñoom mbéygéey ak ñoom maam góor gi Colorado moo ko doon indi ci làmb ji Boy Bambara nekkoon champion bu mag a mag tagle lu mat juróom-ñeenti drapeau mbaa ko ëpp ku naqaree daan kolu nag màgg dem itali ànd ak soxlaam si mu toogal ak njabootam taxawu ndeyam taxawu baayam baam ci ñoom ngërëm kon bu ñu ko ci làmb ji masa sax gëj naa fi yaa ngi koy wax rarement laa fi ñëw. mais moom ci boppam def ne ma boo demul làmb ja du ma dem làmb ja tey jii am na ay xew yu bari yoo xam ni dama ko mujj aj ndax bu fekkee da nga am doom mu am jom baax taral ay waajuram di la taral boo amee bés looy jàpp da nga koy ba man loolu moo di ci làmb ji muy xale boo xam ne nag làmb daf ko xam ndax Fass la dëkk ndax fas ko fa dëkk màgg fa dangay mën a bëre ndeyam ci boppam moo taxaw ni ko doo doon bër kenn ndax ko bëre waaye ne ndey ji ni ko man bugguma loolu ndax xam tamit dafa metti am doom yuy bëre dafa metti wala mbokk muy bëre dafa metti looloo tax dugul ci làmb ji mais bu ci duggante champion lay doon ñu ko nag làmb ji mu mat ko sëkk gis nga délégation bu réy bi mu àndal loolu mooy wane ni ay mbokkam jéppi wuñ ko ay xaritam jéppi ko ay waajuram jéppi wuñ ko man en loolu moom ma indi ci làmb ji tey sinon naru ma fi woon ñëw. nga nekk doyen ci làmb démb signature Sa Thiès ak Reug Reug ni mu demee ak fi làmb toll. waaw xam nga dañu nekk ñaari xale yoo xam ni dañu bokk ci làmb ji ba ñu ràññee leen nag ndax ku ci nekk dafa am loo def dama caase combat yu bëri yi mu bëri. ak defet yu néew yu mu am ñaari defet nga xam ni kon champion la te ku ko daan euh, Malick Niang moo ko daan ak Boy Niang te ñooñu ay ndaanaan lañu mu war a bëri nag ak xale boo xam ne tamit dafa ñëw ci làmb ji dàqe dabe rawe muy Reug Reug ñu war a bëri ñoom ñaar la 5 mars muy làmb joo xam ne làmb ju bëri tension la mais defe naa ñaari écurie yi ak ñaari xale yi yar gi ñu leen xamal tension bi dinañ ko mën a maîtriser ba duñu def dara loo xam ni dinañ dal seen kaw. ndax làmb ji léegi dafa changé am na loo xam ni boo ko defee dañuy dal sa kaw. ndax tamit nit ñi nga xam ne dañuy seetaan ci làmb ji dañu bëgg yenn heures yi ñu fekk leen seen kër. dañu bëgg tamit di encourager ñi leen ñi nga xam ne duñu ñëw ci làmb ji ñuy ñëw ci làmb ji te loolu li koy waral mooy comportement mbër yi mooy comportement amateur yi. am na ñu bari ñu bëgg ñëw amateur yi sànni chaise ak di def yu dul yoon moo tax ñëwuñu mais defe naa ñu CNG bi ñu ngi leen di féliciter bu baax ñu ngi liggéey ci loolu pour dindi li nga xam ne mooy violence bi pour permettre aux sponsors de revenir et permettre aussi aux amateurs ñu dellusiwaat ci làmb bi. tey combat bu mel nii ñaari mbër ku nekk mënu taxaw digérer sa morom bis bi ban bis la lay fàttali ci mbër yi fi mas a jaar. xam nga làmb léegi dafa changé xoolal xale yi rek liñ leen defaral. stade bu mel nii ak géew bu mel nii lii amul woon stade bi ni mu yaatoo fu neex waay toog gis nga niñ ko liggéeyee te pourtant biñ koy liggéey lu nekk wax nañ ko ci waaye gis nga ba mu paree la doon wax yëpp kenn gisu ci dara jàmm fi am am na sécurité xale yi ñi ngi jéem a defar seen comportement pour làmb ji dellu fa mu nekkoon ndax tamit boo xoolee combat yi am rek nga xam ne làmb ji dellu si na te combat yëpp ay combat choc la xam nga ne yaa ngi wax rëg-rëg ak Sa xam nga Kantch ak Lac xam nga ni combat la combat bu métti métti waaw dama naan fàttali ay takkusaanu ay ñoom Souleymane Diaw ak ay ñoom Ousmane Diaw ak ñoom Samba Diaw seen diggante waa Fass ak seen diggante ak séeréer yi doon ay combat yu mag a mag ñu nekk ay écuries yu mag mag yoo xam ne dañu marke làmb ji donc bu fekkee dafa am xale yu fa nekk war a bëre na wër wóor ne taxawaay ba seen i ñu leen fa jiitu doon seeni i waajur te daan bëri taxawaay boobu la ñuy am ndax ñu leen daan ngemb ak ñu leen di préparé seen njaboot a ngi fi seen i doom a ngi fi te ñooñu leen di ngemb di leen préparé donc ay combat yu metti lay doon. ñoom benn yoon la ñu bëree mais Double Less ko dóor mu daanu. Pape la dóor mu daanu fekk na Pape Kane dóor Mbaye gi mu daanu. dóor Robert mu daanu dóor Remorque mu daanu. di ko booleeg Double Less seen bërëb ak rek yàgg na ndax bëri nañ lu mat douze minutes environ te xam nga boobu euh, les day boxe te Pape presque boxeur la les yéexal combat bi jox ko distance ci biir balancement de bras yi ci la ko soxe Pape si mu dóor ko mu daanu mais nag avant mu koy dóor mu daanu Pape kan def na ay jaloore yu mag nee naa dafa dóor Robert mu daanu mu mu daanu. Double ko mu daanu. maa ngi Amin maam Salim sama sang bi maa lay delloo ziar di nuyu Médoune bu baax a baax waaw. diggante sa Thiès ak Reug Reug mu nekk ñaari xale ku ci nekk bëgg nga combat bi ñàkk ko la ñuy xalaat. ñi wax du combat yërëmtaloo démb ñu jàkkaarloo kenn mënul digérer sa morom noo waxee làmb jooju. démb làmb fa am Baye xam nga yooyu day neex. bul fàtte ne combat bi gaa yëpp dañ koo jël. toftal ko ci wala méngale ko. combat 21 mars 2010. waaw Modou Lo Balla Gaye. waaw waaw Modou Lo Balla Gaye. Uh-huh. am na seen face boo xamante bi nii. nii la deme woon. coow la bari te looloo jaay làmb ja nag. Uh-huh. demb nag looloo am. yaa ma sotti gàllaaj sottiwu ma la wala kii daa sotti kii fayu. kon da bëgg wax ne coow li yóbbu na niveau combat bi foo xam na eggu foon. déggoo li ma la coow lii moo gën a jaay làmb ji. xam nga buñ signaatiroon waxante du neex. mais fi mu ne nii coow am na ci yaa tooñ tooñu ma mbokk yi gën nañoo jóg. gën a motivé wu. gën a mobilisé wu. kenn ku nekk am loo denc sa xol. dimanche nag lay leer fii ñoom ñaar 16 combats 16 combats. deux défaites deux cent verdict kii Clinton ak Pape Yekini kii première défaite am première mai 2013 Malick ñaa ko daan deuxième défaite am 11 mars 2018 Boy ñaa ko daan gis nga ku nekk fi nga jóge ñëpp ay ndaanaan ñoo leen daan ay ndaanaan ñoo leen daan uh-huh. kii ay ndaanaan la diilal sans verdict uh-huh. kii ay ndaanaan ko daan uh-huh. mu nekk nag combat bu métti ci Sa Thiès ci Sa Thiès waaw pourquoi bu métti Sa ci li mu jóge donte 26 juin 2021 la jóge ci victoire digganteem ak Malick Niang mais premier janvier 2023 moo tax combat bi métti. moo ñu fàttali ban combat loolu la. ci li Balla Gaye jóge. day métti te booy bi dugg na fa six fois. daan na fa Abama. Euh, daan fa Alioune Seye daan fa Thier. mooy Balla Gaye Junior. daan fa Elton. daan fa Guy gi. niil fa Clinton muy six Sa Thiès nag rajaxe na côté bee bul fàtte nees ak ne ko réel am na fu mu jaar ak ñoom mais li tax mu metti ci Sa Thiès dafa def examen ñaari yoon perte ko donte nag daan na ay moromam mais moromam yi ko waroon a yóbbu cour de grand daa perte combat yooyu mais teewu Sa mooy favori combat bi. Sa Thiès mooy favori. Sa fi mu jaar. takkusaan yu mag yi mu jaar. est-ce que Reug jaar na fa Reug boo dee wax takkusaan gu mag moo guy gi la ak moo Gris bu dee moo Elton dañoo dugg ci takkusaan 31 mars 2018. waaw Balla Gaye moo bëree grand combat. waaw donte Reug Reug nag ndaa naan kullu fadrin la. mais nag Sa Thiès yi mu échec bu ko gañewoon du dajeeg Reug Reug. waaw amateur yi ñu ngi may seetaan. dëgg mu daanan booy Niang. Reug Reug ci ginnaawam lay ne mu daanan Malick Niang. ba tey ci ginnaawam lay ne. mais perte combat yooyu. Reug Reug gagné Jordan. gagné Brise de Mer. gagné Balla Gaye Junior. gagné gagné Bébé Saloum. gagné Elton. gagné Guy gi 20 février 2021 moo tax mu dajeeg Sa Thiès kon nag favori moom dañ koy jox Sa Thiès mais légèrement. mais est-ce que xam nga ne favori ki nga jox Sa Thiès da nga waa wéet. naa ci nag. parce que fit ban nga am ba wéet ci noonu nga nangu ko. parce que li tax ma wéet ci ñëpp dañoo jël lépp jox Reug Reug am na ñu ne moo man moo dàq bëre moo gën a assuré moo gën a nekk xale. yan nga jox Sa Thiès ba jox ko favori. day juum di daan. waaw bu juumul nan lay def. Sa gëm naa ne fii bu dee daan Reug Reug da koy daan ci bëreem. bu ko rëg rëg dee daan da koy daan ci ëppalam ak njuumteem. te dimanche soreetul de bu ko rëg rëg di daan fii. da naan Sa joxu ko cër. daa ëppal. mais bis bu ko dee Sa Thiès dee daan. da koy patam patamee teg ko lu mu attanu. ñu ne rëg rëg dafa jël poids boo xamante ni moomu ko yow loolu ciy wax. rëg rëg lu mu jël moo ko moom. parce que ñi muy kontaagal da cee am koo xam ne gis naa ko. mais nag du yoon ma wax ko parce que secret la te rëg rëg yàgg yàgg. ki mu gis nañ seen contact champion d' Afrique wala champion du Sénégal. champion d' Afrique la. ndaanaan la te foo mu dëkk secteur ba mu dëkk. tôt ou tard rëg rëg dafay dugg bëre fa ak nit. xam nga boo ko waxee day doy waar. kon mbërum Dakar nga may wax kon. déggoo li ma la wax mbër moo xamante bi nii. mbërum Dakar la fa mu dëkk. wax day ëpp de damay bañ a wax rek mu doy waar. kon ay adversaire am la dëkkal mbër mi contact ak mbër mi contact ak rëg rëg. wallaay lancim rëg-rëg xaw ma kuy daan. mais bu dee moo daan. bu bërewul bu duggul foofu. beneen combat ba muy am dina dugg foofu maa ci teg sama bët. mais ci gàttal am na ñu ma la mën a wax ay mbokki séeréeram na. muy caaka fay. day contact ak moom. ordinateur. Mhm. gañ seen. Mhm. fils de Batlin. ñii ñëpp day contact ak ñoom ak euh, Papa Gueye Mouma. Papa te ay ndaanaan la ñooñu. Mhm. mais nag keneen ki moom. kenn sañu koo wax. kooku dañ fay def code. dañ fay def mais maam Saliou. waaw walaay di nga gis combat bu neex bu gaaw. du am mi-temps. leen. man de bu amee mi moom dina ma bett lool. man ni ma leeree ne bi day gaaw. ba ma ko sama àjjana leeroon ma. kaaw de bu amee. day am ku jóg daje ku. waaw parce que Tapha day door pour gaañ la. waaw Modou day door pour gaañ la. waaw Reug day door pour jàpp la. waaw Sa day dóor pour jàppale ñu pour gaañ. suñ taxawee xeex xeexu mbedd. xeex xeexu mbedd Reug Reug mën naa jël coup bu ko gënal parce que Reug moo dàq xeex. mais Sa daa yor xeexu làmb. te xeexu làmb chaque instant mën ngaa jël coup boo xam doo xam fu muy jóge suñ taxawee distance di xeex benn benn. benn benn parce que Reug Reug dama koo gis. Uh-huh. day jiital gauche. Uh-huh. di jam crochet gauche. bu dal crochet direct. Sa day jiital gauche. mais bu arbitre sifflé da lay laaw. waaw day na ay na moytu. fi ko mbëri doon àgg booy say fi mu ko àgg. Uh-huh. ne ko rel àgg ko fa. Moussa Ndoye àgg ko fa. booy ñaa egg ko fa daan ko. ak ñeneen ak ñeneen. Mm-hmm. na invité Reug Reug bañ ko faa yegg. ña ko fa doon yeg muy rëcc. Uh-huh. Zarko yegg ko fa ba wër ko ndomba. Uh-huh. mu wëlbati ku daan ko. ña ko fa doon yegg ak Reug Reug bokkut. bu ko fo Reug Reug yeggee mu dégg di courage. mais nag Reug Reug na moytu loxo droite Sa Thiès bi jàpp. saa bu loxo droite bi jàppee. top 5 dina am gan. tey su Sa dawalee loxom jàpp ba dëgër Reug jàpp ba dëgër ñu ndengeñ ñoom ñaar. non bu ñu jàppee ñoom ñaar ba dëgër. Uh-huh. ki ndengeñ. koo koy def kele daan wala ñu contre kele la nga daan. dama dégg ñu ne su fekkee ne dañoo Sa Thiès jàpp ci Reug jàppagul ñu ngi dugg ci avantage su Sa ku nekk su dawalee sa loxo sa ngem morom dugg nañ ci avantage su waaw Reug ma mën na loolu. parce que saa bu la jàppee. day teg boppam sa dënn wala sa biir. ndengeñ la bu la ndengee day ràcc. Uh-huh. xañ la ngembale nga baay uh-huh. wala mu dóor la nga siggi uh-huh. mu dawal loxo ba ca défendir ba. jéem laa kottu. wala mu caxabal la wala mu sees la. bu dee saa nag. tey ba tey ci biir jàppante boobu Reug Reug mën na cee zongale. mën na ci zongale. mais bu zongalee est-ce que dina ko kott wala dina ko dóor tànk. am na ñu ne saa cees su ba jàpp. day def rotation te suñu defee rotation day def demi flexion su ko Reug Reug fekk see foofu Reug Reug du jóg ndax poids bu ñor. mais bul fàtte ne demi flexion boobu. Reug Reug mën na door tànk de. mais poids ba la ñuy xalaat. mais poids bi. tey man tànk laxasoo ak sa poids. c'est que kay lenn laa xalaat. bu dee tell tell am na daw dóoran. bu Reug Reug dawee yooru buñ ko faaxee mën naa kat ab. ndax parce que doole ji bari na ci kaw lool. Uh-huh. donte suuf gi am na doole. Uh-huh. mais combat boobu daa saaliw. Uh-huh. jël leer naan ñu laa ci xool. te du dem mi-temps. ah uh-huh. moom saa boo jàppee ne am na fii lañ bëre. arbitre sifflé ñu daw ñëw ci langa gi. ndax la amoon dem ba làmb ji euh, comme euh, signature ba yàqu ndax mën naa am ci biir làmb ji fi ci Sa Thiès lay dépendre. làmb ju yàqu du am bëre laa la wax. non déedéet làmb bi gasoo la kii ko tëgg. Uh-huh. sa waay armée bi boo signature gasoo yàqu de. sa waay boo sàgganoo armée bi signature gasoo yàqu. xam nga lan moo tax signature ba moo yàqu signature boo ko teg làmb <laughs> lig ni ko lay yàqule na fi signature Aziz Ndiaye yàqule na ko fi ku nekk ne mm. mais lii signature du làmb mm-hmm. làmb fii suba 9h boo ñëwee fekk fi oto ndox bu tàng bi <laughs> fii di nga gis ñoo xam doo gis seeni bët eh? fii ku fi yëngal di nga génn ci lu leer laa lay wax saay lamb ji làmb la de. ñu tojoon veeru Sonko bi ah, menun ku yebu bañ a ru. menun ne ñu tojoon veeru dañ ñëw. déggoo li ma la wax. Ah. xam nga ñooñu. Ah. li ñu li ñu def seen loxo yi kenn xamul la la. dañuy door ci veer muy toj. ku yebu moytu de xale bu ci yaree ku mu bu nga toog sa kër. nga ne ñaata ndox ñaata oto ndox mu tàng moo fi ñëw. non chaque lamb gasoo 4 ba 5 dinañ ñëw. yoo xam ne ndox mu tàng lañ ci def. ndox mu tàng kese. rompé bale ah. xel kom baas ba. Ah. oto nga fa taxaw. Ah. tribunal bi oto nga fi taxaw. ak ci biir koñ yi. ku yabu daal nga ñëw ci jàmm. seetaan ci jàmm ñibbi ci jàmm. ñi raas dem loolu la ñu wax. moytu rek. Sa daal en tout cas. na teey te xam ne combat bi daa metti ci moom. mais Sa na teey ndax Sa Thiès teey dig na ko euh, daa bari ay façon xam nga bu arbitre bi sifflé. mën nga ne tekk tey. waaw round d'observation une minute deux minutes. nga dal ci kaw adversaire bi mais booy dal nga contrôler parce que tey boo teelante ay coup Reug Reug li coow li bëri bari nit ku yeewu la man ngeen a waxante mais saa bu arbitre sifflé day fàtte wax ji concentré wu ci bëri bi du juum te boo juumee mu daan kon nag Sa Thiès faaw mu vigilant ko ci gardu Reug Reug faaw mu jël loo ko coup bu ko defee daan bi day yomb ci moom jërëjëf Mourane jaajëf man maa ngi lay fay Saliou Ba coow lu coow li mooy lamb ji ñëwagul signature bi toj na lamb ji gën a bëri coow laat lu xew. li xew mooy ñaari mbër yi ñu ngi nuyu Sénégal yëpp xam nga Reug Reug Sa Thiès Zal jooju lamb mënta yomb. kenn xëpp na morom ji saafara ñu xëppante ko ñaari supporters yi uh-huh. kenn ni du mën a may sa morom dara xëppante saafara yàgg naa am uh-huh. waaye da xam ne dimension làmb jaa fa toll uh-huh. Saliou ba dimanche ñaari xale yooyu bu ñu dongalee fii nga xam ne làmb daal xale koy def mais ñi ñëw ci stade bi sécurité bi noonu koy def préparé production lu man dajal sa signature waaye ku ñëw fii am sécurité fii ku fi yëngu police yóbbu la maa wax ak yow waaw c'est fini <laughs> làmb jaa ngay daw maa di dàq ñu ko bëre <laughs> wax na dëgg nag kii kii sama papa la te bari na lu ma xam ci man kii daf ma xam bu baax a baax a baax a baax di mag mu yàlla baaxal nag ndax lii mu def nii yombul yombul te keroog bi ma ko woowee wax ko ne papa mu ne ma ma ne ko man kat dañ ma tuddee drapeau te fas yéene ma ci dem lu dul sa jëmm teew ci bés boobu ba tey ji moom lay xëyee moom lay gonte wan ma ci Pastef boo xam ne moom ma ci gën a sax am Pastef man di ko sant nag di ko gërëm bu baax a baax a baax di ko wax ne ko lii wane na ni moo ma jur moom xam na li may wax moom waaw di di di di di ko sant daal di ko sant bu baax a baax a baax loolu mu la wax nag ne la gaa yi bëre dàq ñu ma bëre yàlla seere na ni dàq ñu ma bëre waaye dafa di wax na la ko léegi sama yaay di sama jur bu jigéen di sama lépp di sama lépp Mbaye Dendeel la ma Ndiaye di ko ñaanal fan wu gudd ak wér di ko ñaanal sama papa ji ma jur sama yaay moo bëggul woon ma bëre dafa am bés ma bëre mbapat ca fas Mbaaw moo job mbay bu dee mi may dégg dana xam li may wax ma jël mbappat ba daan keroog Pape Gueye magu Tafa Gueye moo arbitre lamb ji te boobu li ko jommaloon mooy mbër yi dañuy fayeeku ay millions te man fayeeku ma woon entraîné ma bëree ma waaye mënuñu ma woon a daan làmb man dafa bokk ci man tuddee bis bi kontaan nga ci waaw bis bi bis bi bu ma nee kontaan sax peut-être dafay am fu ma ko dama koy wutal limite romb naa kontaan ndax ki ma ko tuddee dañoo juddoondoo yaroondoo bari lu ñu defandoo ensemble man ak moom lii du lii li li lii du tey dafa yàgg lii dafa yàgg mu wane ci ngor nag ndax tey peut mënoon na ko tuddee ñoo xam ni daanaka ñoo ma ëpp doole téeméeri jindi yoon ñun amuñu dara ay xala lañ di soog dugg ci àdduna mais bu teggee yooyu yëpp jël drapeau tuddee ma ko duñ def lu dul gàcce ngaalaamal ko duñ def lu dul sant ko de wan ko ni geste bii nga def geste noble la ndax bari na ñoo xam ni peut-être bu doon ñoom la mën nañ koo bañ a def waaw di ko rafetlu nag di ko ci sant di ko ci gërëm di gërëm sama soxna tamit di gërëm soxna si di gërëm soxna si di gërëm soxna si di gërëm sama waa kër di gërëm waa Médina di gërëm waa kër Balla Dogo yëpp di gërëm samay mag di gërëm sumay mag di gërëm sumay nijaay di gërëm suma mag Seena Mbay mais bu ma nee Sène mbay rek mel na ni nee naa Matar nee naa Youssou nee naa Aïda nuyu naa leen ñoom ñëpp di leen gërëm te di leen ñaanal tawfeex tey wax ne sama papa ma sele comme ni ma ko doon waxee rek kontaan na gis naa ko ñëw na ci bés bi ak doole di ko ñaanal tawféex di ko ñaanal gudd fan ak wér ndax moom lam doon wax ne yaay sama taaw dëggal na ko ba tey ji waaw di dolli di ñaanal ñi nga xamante ni ñëpp Medina lañ jóge di nuyu sama gars yi ma àndal yëpp di leen ñaanal tawféex waa affaire yi daal noonu la demee tey gërëm na bu baax lu bare bare bare bare bare di gërëm ñëpp di gërëm sumay nijaay yi nekk ci biti di gërëm waa diaspora bi di tamit profité di nuyu suma mbokk italien yi di leen wax ne tra ko veniamo lì inshallah stiamo qui e vi stiamo salutando tutti quanti e stiamo organizzando delle cose molto particolari da eh, yàlla daal bari na sutura yàlla ñu ko defal defal ko Sénégal gépp barki borom Touba waaw di gërëm ñëpp nag di gërëm ñëpp xel dafay fatu waaye kuñ ci tudd rek nga xam ni njuumte la ñu ngi jéggalu bu wér tey gërëm ñëpp barki borom Touba.